VDN ñu ngi déglu ah euh, à travers émission bi nee na ñu dimbali leen ci VDN bi xat na trop trop trop trop je pense que ne li om Chawama Talla xam naa ni euh, choc ba fa am euh, moo waral mu xat lool yokk ci xataayu d'habitude bi ah ndax boo jógee Dakar di dem VDN di ñëw ci VDN bi dafay xat lool lool donc euh, ñoom itam ñu ñuy déglu ci VDN bi yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax baax alors Saliou Joseph yow itam dañuy ñëw pour une première analyse et lecture bi ngay def wala bi nga ñuy defal ci la sorti de Ousmane Sonko. moom mi jiite Pastef ginnaaw euh, procès bi ni mu tëddee ñuy xaar verdict le premier juin moom mu jàpp ne stratégiquement moo taxoon mu replier waa à ba li ñu gis gis nañu ko maintenant nag euh, beneen stratégie moo ko may tey mu retourner sur Dakar et que assaut bi fii fii fii la ñu koy euh, fii la koy naka la ko mën a jàngatee. il est dans son rôle de politique boo xamante ni si dafa jàkkaarloo ak benn régime. Euh, régime politique je dis bien je ne dis pas l'état régime politique boo xamante ni si ay ay adversaire lañu ouais. donc euh, lépp loo xamante ni jàpp na ni moom war na ko mën a def ngir euh, yegg ci li nga xam ne moom la bëgg muy doon jiitu réew mi tey jàpp naa ne daf ko war a wéer ci lu ko yoon may dana ko def bu nu ñëwee nag ci sorti bi nga xamante ni si président Ousmane Sonko def na ko démb dama damay am une d'une part mm-hmm. benn jaaxle bu ndaw parce que président Ousmane Sonko à travers son discours wone na ay imperfections yu baree baree baree baree bari via l'audience ci procès bi wone na ni ñi déchargé nañ ma capitaine Touré bi muy def nii dañ ko dagg euh, nangam nangam arsenal de preuves yooyu yëpp nga xamante ni si am nga ko mu mun la permettre tey jii nii kaddu gi tuuma gi nga xamante ni si teg nañ la ko nga dindi ko et tu n'es pas venu ñëwuloo may sa ay avocat yow mi nga xam ni doo avocat nga mën a déceler loolu génne ko maanaam wane ni lii yépp ay imperfection la à travers son discours ci bi muy waxtaan nga mën a wane ni lii lépp ay imperfection la mais ñëwuloo permettre sa ay avocat chevronnés qu'ils sont les maîtres Ciré Clédor lii ñoom maître Bamba pour ne citer que ceci euh, ñooñu noonu ñu mën a débattre euh, wone li nga xamante ni si mooy preuve yi nga xam ni moom président Ousmane Sonko mu ngi koy wax ba tax tey jii nii tuum ak viol teggi ko ci moom à jamais mu dugg ci couloir bi nga xamante ni si porté projet bi nga xam ni moom lay wax saa su nekk moom la gëm je pense que li mu waroon def quand vous voulez euh, nit bu bëggee teggi tuuma bu bëggee dindi lay bu bëggee indi layal boppam dindi li nga xam ne moom lañ gàll ci ginnaawam euh, du ci média du ci média nga koy defee même si on te dit que procès euh, bu ñu naan président Abdoulaye Wade wax na ni euh, procès pub procès politique du ñu ko gañee ca tribunal ba ci opinion bi lañ koy gañee dëgg la ci ci bu dee procès politique la mais Ousmane président Ousmane Sonko comme on a l'habitude de le dire est un justiciable nit ku nu war a mën a atte la file ak doonul président de la république wala mu doon koo xamante ni si da nga am mbalaanu kiirlaay goo xam ne danga ko war a tegi c'est un justiciable mën na dafa dafa war a dem ci kanamu yoon bu nu ko fa wooyee pour atte ko moom euh, sunu réew ni mu bindoo mooy nul n'est au-dessus de la loi même président de la république dans l'exercice de ses fonctions file ak mu ngi doon le chef de l'État kenn mënu ko yóbbu ci yoon ëllëg lañu ko mën a toppee ay haute yóbbu ko ci kanamu ëttu attekaay donc moom président Ousmane Sonko li nga xamante ni si moom la doon mooy justiciable mhm. jotul convocation il dit ñee def nañu seeni pexe ba ni jot na convocation loolu dañuy jàpp kenn ku nekk da ngay jàpp li nga ki nga gëm mhm. ndax ñaari kàddu bu jibee kenn ku nekk da ngay am koo gëm da nga naan man diw laa gëm ndax moom laa àndal keneen ni diw laa gëm ndax c'est un agent assermenté du wax lu dul dëgg ndax loolu la ñu loolu la ñu jàngal ci ñoom seen doxalin kon tey jii li ngay jàng ci discours bi yëpp mooy à travers président Ousmane Sonko li muy wax on sa dédouane nit du du du setal boppam ci ay kàddu yu muy wax ci média yi ma ngay setalee boppam ci ëttu attekaay ba parce que bu dee et je bien bu dee néew ma loolu mooy am bu dee danu ko reconnaître coupable ci lii nga xam ne moom lañ koy toppee munul nekk ci munul toog ci média yi woo ñin ñi daan ne man je ne suis pas coupable du loolu mooy dindi culpabilité bi nga xam ni yoon teg na ko ko fa nga xamante ni si fa la mën a dem layoo fa wone moom preuve yi nga xamante ni moom la am encore une fois li nga xamante ni si téye na ko ci loxoom te décelé na ko à travers moom procès bi dem ci li nga xamante ni si wax na ko bërki dem ci li nga xamante ni si moom wax na ko loola dama jàpp ni dafa waroon nekk ca biiru tribunal ba pour permettre ses avocats ñu débattre ci loolu loolu benn wàll beneen wàll bi muy par rapport rapport vis-à-vis bi nga xamante ni si tout au début je pense que président Ousmane Sonko dans le cadre de sa communication mu ngi ko doon doxal maanaam dana ne pas tirer directement sur Adji Sarr ba indi ñoom ñaar léegi ñuy waxtaan léegi coow li bu njëkk dañ doon wax président Ousmane Sonko euh, amul jotu diw amul jotu diw mu ngi wàcc ndànk-ndànk dans le cadre de sa communication may na moom président Ousmane Sonko ci wàllu politique bu njëkk président Macky Sall la doon waxal Benno Bokk Yaakaar ku ko wax du la tontu tontonte na fi ak Aminata Touré ba may ko rapport de vis-à-vis maanaam taxaw di débattre ak moom may na ko fi Mame Mbaye Niang ci coow boo xamante ni si parce que les gars quoi que l'on puisse dire ñu ngi doon gis président Ousmane Sonko ci ku kawe koo xamante ni si ki muy jàkkaarlool président Macky Sall la. Mm-hmm. mayaat na ma Mbaye Niang rapport de vis-à-vis ñuy wax muy tontu kii di wax muy tontu tey jii wàccaat na ba ci suufa suuf ci di jàkkaarloo ak Adji Sarr di di waxlante ak ay moom te nag boo bippee am crédit da lay woo boo toogee un de la trempe de Ousmane Sonko ci dayo bi mu am ak ni mu toll. Hmm. wax ak benn sénégalais. wala ku mënti doon wax ak sénégalaise yëkkati yenn kàddu yi toftal ko ko ci ñu jàppe ko ni xas kooka bu génnee moom itam ndax ñu bari dañuy wax ni xuloo amul amul réglement loo jël ci lu ñaaw rek da nga ko yónnee nit ki aji saar bu génnaatee daal di tontu ca loo loo xamante ni si moo gën a ñaaw donc c'était à éviter parce que président Ousmane Sonko bu dee dafa bañ euh, taxaw ci kanamu ëttu attekaay ñu koy wax ay wax yu ñaaw di suufeel jëmmam di ko di ko di ko di ko manqué de respect ba ñu ni procès moral la ba tax ñu jàpp ni ci stratégie looloo tax ñëwul bu génnee ca ginnaaw loolu warul di doxaat ci luy jëm ci procès bu mel noonu de manière indirecte maanaam toog wax wax ju ñaaw jëmee ko ci doomu aadama ba kooku di yëkkati jeneen wax ju ko gën a ñaaw di tontu loolu c'était à éviter bu ñëwee ci aspect euh, déloger président Macky Sall au palais loolu président Ousmane Sonko moo la gën a xam ni moom loolu mënul nekk ci Sénégal kii. Mm-hmm. mën nañu wax nag dans le cadre de la communication politique comme Macky Sall ni mu toogee woon ni si s'il dit qu'il a gagné c'est différent de s'il gagne s'il dit qu'il a gagné nous allons le faire wax ko na mu ko waxee ndax terme yooyu duma ko utiliser man di ko jëmale ci ñenn nit yi. président ab moom président Macky Sall loolu la toftal ko ci président Abdoulaye waat donc tey xam na ni mooy li Abdoulaye wax danga koy interpréter te booy interpréter bu dee ci diine ju ñu bokk aada ju ñu bokk ak li ñu jàngal booy interpréter da ngay interpréter la gën a rafet da ngay jàpp jàpp ni da ngay rafet njort ci nii ni mu koy waxee mooy maanaam léegi lépp jeex na lenn na ci des ñu def focus sur les élections pour dem élection bokk. gañe président Macky Sall mu génn ci pale bi ndax loolu jeex na mais bu dee noonu nga koy interprété ba gis leneen c'est à l'état du maintenant du Sénégal mm-hmm. bi nga xamante ni si ñoom il évolue dans les renseignements mm-hmm. ci li nga xamante ni ñoom détenir nañ ko ci renseignement ci xibaar yu jëm ci luy méngoog luy jëmmal kàddu yi nga xamante ni si wax na ko ndax nguur fu ne ci biir réew mi ak wa waxtu wu ne am na ca xibaar buy bàyyi ko foofu di ñëw bu dee daf koy matérialiser au sens propre maanaam ci kàddu ni mu ko waxee dajale ay nit jëm ca palais ba génn fa Macky loolu nguur président Macky loolu nguur dana ca am xibaar lu jiitu yegg seem ci Ndakaaru gi bay jëmmal bay jëmmal loolu parce que nag si notre état est à ce point faible et absence euh, et vit dans une absence d'information et de renseignement ce qui n'est pas du tout le cas que je pense même ah kon bu boobaa nekk Sénégal wóorut. mais ce que je sais. Ah, ah, mooy nguuru Sénégal. Ah. dinañ jël matukaay yi ci war yépp parce que nag le président de la République. Mm -hmm. président Macky Sall. fut ministre de l'Intérieur il fut maître des renseignements de ce pays. Mm -hmm. avant d'être président de la République. donc xam na lu bare bare bare bari bu dee loolu moom la loolu ñëw loolu président Ousmane Sonko wax daf ko bëgg a jëmmal. Mm-hmm. kon dañuy yem ci interprétation d'un discours politique bu naan. Euh, maanaam léegi yëf yi jeex na couloir